ngeen jot da ngeen di abonné fii si Tawfekh Production ngeen mën a jot moo a xam li nga dundal ko parce que dafa nekk sunu xol léegi nag duñu nangu kenn dañu ko yaaxal ah yow sàcc nga doo wax katu dëgg da ngay taxaw di fenn ki ngay waxal di di la xool xam ne yaa ngi fen yow nga xam ne ki ngay waxal xam ne yaa ngi fen ngay continuer di fen di ñu fen ba pare encore nga ne léegi du ngeen fi baaxee nag mais loolu nekk quoi incha allah te on a compris beaucoup de choses parce que bu dee ay ay ay ay ay mais Sonko ñaata la def ay don de sang fii kenn xamul te ñoom ils ont tous les kii ay ay ay des des trucs pour pour mën a modifier c'est-à-dire il faut Sénégalais yi yeewu quoi xam ni fii Sonko aussi mu xam ni il a affaire avec la France que lii Macky Sall daf cee tuuti. def Macky Sall dafa tuuti ci lii ku tuuti la si ñun ñi amal affaire mooy ñi nga xamante ni ñoom ñooy la France colonisation bi ñu takk bum yeew ñu ne ñun tey du ñu moom sunu bopp lu ñu liggéey ñoom ñoo koy dundee ñoom lu ñu am ñoom ñoo koy moom ay ati at après esclavage après néocolonisation kii après euh, colonisation après néocolonisation encore après ñun ñu jóg ne dañuy jëmmal ay nit ñu ne ñu noonu loolu du fi amee. mënul nekk quoi mënul dal Mamadou Dia dal dal dal Thomas Sankara Cheikh Anta Diop dal ñoo ñu taxoon croisé mais mënul nekk quoi le Sénégal moo tax ñu jug intérêt Sénégal moo tax ñu jug te ñi ñuy jàmmaar loolu c'est pas Macky Sall Macky Sall n'est qu'une euh, marionnette benn benn pion la quoi boo xam ne dañ koy manipuler du si dara mais ñiy dundee Sénégal di sucer sa deretu askan wi depuis des milliers de milliers des années ñooñu système boobu noonu ñun moom lañu amal affaire ñooñu moo tax nag kon na Sénégal ay yow waaw bu dee ay deret la wala kii moom soo waaye li mu mayee deret fii ay sensibilisation don de sang yi du xam kan lañ amal affaire ñan la ñuy xeexal waaw c'est des yoo ne ils sont